alhamdulilah ñëw leen seen revue de presse lamb samedi tey jii la ci gën a fës suñu lamb mu ngay xëy di ñu xibaar ne combat Modou Lo Sa Thiès combat ba taxaw na Makan Beng moo fa jaar kon combat ba taxaw na bu ñu fàtte ne dugg nañ ci mois de avril ñu ñëw ci combat Ama Baldé suñu lamb mu ñu xamale déposé na ndiki démb certificat de guérison waaye ab tul ba léegi suñu lamb mu ñu xamale bañ ko xoolee Ama Baldé amagul wér-gu-yaram mayaat nañ ko 15 jours yoo xam si nii dañ ko ci dollil mu ñëwaat ñu consulter ko xool wér-gu-yaramam fu mu toll suñu lamb mu ngay def bilan arène nationale ba ak Iba Mar ci wàllum boppat quatre gala organisé organisé nañ ko ci diggante ñaari yooyee teg somb toll ci treize millions cinq cent suñu mu ñu xamale mbëri compétir gis ci seen bopp amateurs tamit gis ci seen bopp ñu ñëw ci combat Lagrose ak Quench suñu mu ñu xamale nekk na combat boo xam se ni kii di amul droit perte boobu le bu bëggee defaat carrière bu bëggee demaat ci kaw ndax daa perte ci kanamu Garga Mbossé di ñu xamal ne combat ne bii mooy ñetteel bi yoon ñu nar a bëre woon muy Eumeu Sène ak Balla Gaye 2 combat ko le 30 juillet beneen combat ngi nii ci diggante fils de Sadio ak top 5 beneen combat ngi nii tamit am di nogay ak ki nga xam si Kaari Sadam suñu la mu ñu xamal ne ak caatu guy gi 2 combat yëpp mu ngay am ci combat Lagrose ak Coen suñu la mu ngay ñëw ci beneen combat ci diggante fils de Balla ak ki nga xam si ni moo di doomu dàngu combat bi amateur yi di xaar combat attaquant yi combat cogneur yi le 4 juin lañ ko jàpp suñu làmb mu ngay ñëw ci beneen combat diggante Mbaye ñu xamal ne combat boobee ndax Mbaye Tine Junior mën naa freiner Tony Junior ci lancé bi mu nekk ngóor ñaax suñu làmb mu ñu xamal ne jóge ci équipe bu Kaolack ba dem ci équipe li nga xam si ni moo di Fatick suñu làmb mu ñu xamal ne daaw Kaolack la bindu woon waaye ren ji ma nga bindu Fatick beneen combat ngi nii ñu xamal ne amateurs yi ñoo ngi ko doon coow mais dafa mel ni boobaak léegi gisaguñ benn promoteur bu wane ne ma ngi koy démarché suñu làmb mu ngay ñëw ci combat armé bu ngéwal gi ak bébé ama bu Pikine combat boobee le 6 août lay doon suñu làmb mu ñu xamale Mbewaan production Ibra Diouf mooy ki nga xam si ni moo koy amal suñu làmb mu ngay ñëw ci kii di Mbaye Diallo bokk ci staff bi nga xam si ni moom la Ibrahima Diop jiite bi tëgg combat Ama Baldé Gris Bordeaux mu ngay xam ne ne combat boobee ñu ci sax porté ci plainte ki nga xam si ni moo di Ama Baldé suñu làmb mu nga ñëw ci Doudou Sané dañu xamal ne ren ji ci set gala yoo xam si ni wàcc na ci moom Doudou Sané set galaa yëpp moo ca teg loxo mooy jël mise ba mooy raw gàddu gi mooy jël la nga xam si ni teg nañ ko fa ginnaaw loolee ñu sant leen gërëm leen jox leen dig daje niki lënd incha allah te di leen ñaanal weekendu jàmm di leen ñaanal koor jàmm